asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internetu RMB TV dal leen ak jàmm ci RMB TV mardi le 22 octobre fële ca Fass Mbao benn accident bu méttee métti ah, moom moo fa am benn oto moom moo saaraani fekk balekat yi nga xamante ni ñooy waa nekk ci tëli mu daal di dal seen kaw ba ñetti nit daal di si ah, am ay gaañu gaañu yu méttee métti métti ci la ñi nga xam ne ñooy waa gendarme daal di ñëwee ci liggéey boo xamante ni liggéey bu ama am. solo lool ci lañ woowee sapeur pompier yéex na ñëw waaye ba mu ñëwee liggéey na liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy ay àndandoom ñuy liggéey ñoom ci njiit ki nga xamante ni moom mooy jàllo euh, taxawu nañ ko taxaw boo xamante ni taxaw bu am solo la wax dëgg yàlla ba ni sapeur euh, di ñëwee di leen ñaanal euh, yàlla na yàlla def jàmm ci ñett ñooñu nga xamante ni ne ñoom la oto boobu laal jàmm ak salaam ci réew Sénégal